asiin muhjamatan wal kaafu warraaw bismillahi lasil quraan qad nasala min hubtidaa'i wa arju indahu nusula alhamdulillahi wa salla abada ala lasi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi zawina wali wali man zanna xayra allahi wax ni aw yadur fa zaaka fi daare ni zo kadin wadur bokki ñi bàyyi xel seen télévision almouridia ci jotaay bii di saxaafu xadaratu muslim mooy culture et civilisation musulmane del si waat nan fa yéene àndaat ak yéen waaye nag jiital nag nuyoo ak ziar ñeel mboolem ñuy teewlu ci jiital ci borom paste bi ak mbégte mi ak Cheikh Modou Mountakha yàlla na suñu borom dolli ko ku la Cheikh Mountakha yàggal ko fi suñu lool mu ànd ak wér ak ba lépp lu mu yéene ci liggéeyal mun Mountakha yàlla na ca wax ci jëf ci lu koy njort yëpp di siyaare nag tey ñaanal mboolem suñu kilifa yi diine ak fu ñu mën a ne tey nañu bëgg Eh, ànd ak koo xam ni ku ñu miin la ci waar wi di borom daara waaye di ko nangoo yaatal xam-xam rawatina njàngaleem sëriñ bi muy Seydina Alioune Bousso Seydina Alioune ñu war a waxtaan ci wàllu eh, solos li nga xam ne moo di dimbalante ak itam wàccuwaay gi nga xam ne am na ko ci lislaam eh, ni ñuy defar mooy jaar ci bunt bi doo ko tàbbi ci néeg bi suñ Seydina Alioune xanaa ko ñu jox la nga nuyoo fay nuyoo ñu doog a ci waxtaan wi asalaamaaleykum aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim in alhamdulilahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaxfiruhu wa wala nakfur wa nauzu min sururi anfusina wa sayiaati man yahdihi llahu fala mudilla la wa yudlil fala haadiya la wa nashhadu anna sayyidana wa safiina muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam mbokk bi ñu santee suñu borom bi subhaanahu wa taala julli ci yónnenteem bu màgg bi alayhi salaam ñu ngi leen di siyaara di jiital ci nuyoo bi ak màggal yi ak siyaara yi Seex Muhammadinal Muntaxa moom mi nga xam ne moo kilifa ak mboolem murid yëpp ñu ñaanal ko bu baax suñ borom subhaanahu wa taala gën koo sàmm gën koo dimbale gën ko wattu ba naal yu mag yi nga xam ne naal na ko yéene ko liggéeyal lislaam bi yëpp suñ borom defal ko tawfeex ba mu àgg ba mu naal yu yeneeni naal yu baree bari te àggale ko te ñu ànd ak moom liggéey bi waaye ñu jël niveau yi ak siyaare yëpp nag di ko teg ci kilifa gi nga xam ne moom laa toogal seq moom jotaay bi tey muy sëriñ imaam ñang mm. ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoom laa fekk ci kër gi yëpp ci njiitul Serigne Youssouf ak mboolem ñu koy jàppale ci liggéey bi yëpp ñu ngi leen di siyaara ak mbooleem kilifa diine yi fu mu mën a nekk ci réew mi rek ñu ngi leen di màggal bu baax a baax di leen siyaara di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala ñu barakaatu naa Sidna bu so nuyoo bi jot na macha allah am na solo kon xanaa ni ñu def rek ba tey da ñu ngi ci néeg bi waaye nag dañu ñu ngi ci saal bi waaye dañoo war a jàll ci néeg bi nag kon nag faaw ñu jaar ci bunt bi ba tey. bunt bi mooy bu ñu bala ñoo ñëw ci dégg dëgg dimbalante xanaa ñu bëggoon a xam lan mooy dimbalante waaye tamit solo si nga xam ne dimbale dimbalante am na ko euh, dimbalante rek moom bu ñu ko waxee ñun fii dimbalante ci ni ko yàlla ci borom diglee muy ci lu baax ak itam ci ragal yàlla solo si nga xam ne am na ko waaye lan mooy dimbalante ak ban solo la am. Euh, jërëjëf sëriñ Imaam delluwaat rek di sant. waaye di rafetlu jotaay bu baax. Mm-hmm. ñu jël tey nag thème boo xam ne thème la thème boo xam ne bu jara yittewoo la. Mm-hmm. bu jaral di waxtaanee lu baree bari nag la. Mm-hmm. waaye aay bi tànn rek. Euh, fas yéene ko yaatal bu baax. muy aay bi suñu borom woo tax taala di wax ci alquraanu karim. wa taawanu alal birri wa taqwa. wala taawanu alal ismi wal udwaan. maanaam jëmmi aay boobu la ñu war a waxtaanee leeral ku baax ñu bokk ko jàngat ñun ñëpp rek. Euh, muy aay bu màgg boo xam ne suñ borom woo tax la da ci soññ mbooleem jullit ñëpp di leen diggal ci ñu sax bu baax a baax ci dimbalante waaye dimbalante nag ci ak mbaax ak ragal yàlla rek lépp loo xam ne lu yàlla bëgg la lu mu gërëm la lu sopp la ñu fexe ba di ci dimbalante bu baax a baax waaye lépp loo xam ne ak mbon la wala luy jur waral ak noonante la loolu moom ñu moytu ko bu baax a baax waaye ñu seetlu ne jamono jii ñu nekk nag aw yiw moom bari na lool ni mu baree tamit noonu la ab sofaan tasaaroo moomet kon loolu nag moo war a tax warteef lay nekk ci kenn ku ne ci ñun ñun ñëpp rek ñu taxaw temm ci tasaare yiw mu gën a tasaaroo waaye lépp loo xam ne ab sofaan la nag ñu fexe ba néew fi lool ci ci ci dund gi mu néew lool ñuy fexe nag di kàttanal bu baax ñi nga xam ne ñooñ diine lan ñu leen di di leen kàttanal bu baax di tasaare diine ji ak di te euh, fexe bay euh, xeex lépp loo xam ne ak mbon la ab safaan la mhm. ñu taxaw temm nag ci xeex ko jële ko fi ak képp koo xam ne da koy tasaar rek ñu fexe ba jàmbaar la moom mhm. ba dindi ko ci lim nekk mhm. ba mu bàyyi ko bu ko kii nag ñu jëflante moom ba mu ba mu bàyyi ko rek nga xam ne jëmmi dimbalante googu baat la bu muy al birru wa taqwa baat la boo xam ne euh, bu fekkee dañoo teqali ko moom day mën naa nekk benn maanaa bu mm-hmm. fekkee ne dañoo daje nag day daal di wuute mm-hmm. euh, lu mel ne alislaam ci boppam ak ak imaan mm-hmm. nga xam bu ñu jëlee baatu al imaan rek boobaa gëm yàlla mën nañu wax ne lislaam mën naa dugg ci biir waaye nag léeg-léeg fekkee ne dañ leen a boole comme alxuraan karim léeg-léeg mu ne wa amanu wa aslamu maanaam saa ko waxee rek boobaa kon teqale day daal am boobaa kon aslamu ji mooy ki xam ne moom gëm na waaye mooy jëfe moom gëm na ba noppi di di di jëfe loolu mooy wa aslamu kon léeg-léeg dañuy dañuy teqale ko bu fekkee ne dañoo daje maam dafa bari lool misaal yu nu war a yu ñu mën a andi ci alxuraanu karim eh, borom xam-xam yi dañ koy teqale eh, ku mel ne bi moom dafa wax na al al bir wa taqwa moom benn maxanaa rek la am day wax ne moom kenn képp koo xam ne gëm na rek képp koo xam ne baax na rek ragal na yàlla waaye ku ragal yàlla tamit baax na waaye ñu gis ne yeneen borom xam-xam yu bari ci borom xam yi ñoom it danañ ko teqale eh, alxurtubi moom am na téereem bu ñuy wax aljaamihul ahkaamil xuraan nga xam ne day da ko firee moom ne euh, albiru mooy nit ki di jottali ko lépp loo xam ne lu war la ak lu sopp la mm-hmm. ak di jëm dox jëm ci nag waaye ragal yàlla mooy li nga xam ne mooy sàmm loolu lépp mm-hmm. waaye am na beneen boroom xam-xam bu ñuy wax sax di mm-hmm. moom dafa wax ne al birru moom tur la woo xam ne rek dafa boole lépp loo xam ne lu yàlla suñ borom subhaanahu wa taala gërëm la ci mbooleem jëf yi feeñ ak yi nëbbu yëpp mën naa nekk àq yoo xam ne yu war ci diggante jaam bi la ak boroomam mhm. wala àq yoo xam ne dafa jëm ci diggante jaam bi ak mbokki doomi aadamaam mhm. nga xam ne kon loolu lu yaatu la mhm. waaye ragal yàlla moom mu fireeku ne mooy nit ki bàyyi lépp loo xam ne rek ab ab sofaan la lu yàlla bëggul la lu yónnante bi bëggul la moo xam jëf yu baax yi la moo xam yu feeñ la moo xam yu nëb yi la am lu la ko leeree ci téerelem boobu ñu wax taysirul karim rahman waaye am na beneen boroom xam tamit bu ñu wax ibnul xayim rahimahullahu taala moom dafa wax ne teqali gi am ci diggante bi rek ma mel ne diggante sabab ak euh, sabab ak raaya ba xam mën nañ sabab bi léeg-léeg ba mooy mooy waral lu mel ne bu ne julli julli farata la léegi nga xam ne moom mooy dox jëm ca jàkka ja am julli ci bopp mooy farata rek dox gi nit kii dem dox jëm ca jàkka ja loolu moom du farata waaye yi bu bari da ca ne nga xam ne kon lii am moo tax mu waral lii mm. loolu noonu la ko leerale moom daal ne mbaax nag moom lañ sàkku ci jëmm ju mën a doon rek ndax mooy wane ak matam ak mbaaxam ci lépp lu dul moom waaye ragal yàlla gi nag moom mooy yoon wi nga xam ne rek moom moo koy àggale ci loolu loolu moo koy àggale ci mbaax gi mooy jumtukaay bi nga xam ne daal moom moo koy àggale ci mbaax gi am noonu la ko waxee moom ci téere bi ñuy wax zaalul zaalul muhaajir waaye tam lu yaatu la daal loo xam ne moom mënees na ci andi misaal yu bëree bëri rek waaw kon loolu lépp day wane rek solo soo xam ne dimbalante ci lu baax ak ragal yàlla am na ko euh, ndax boo gisee boroom xam-xam yi di ci yaatal ak itam di wax ci euh, ndax lu teqalikoo la walla benn la di ci def coono yooyu ci ñu ci def euh, loolu lépp dafay wane da koy dolli solo walla boog day wane solo soo xam ne am na ko waaye itam fi bokk na ci solo si rek mooy aaya alxuraan boobu nga xam ne ci lañ déparé waxtaan wi ci la ñu dëj tam waxtaan wi walla ci lañuy ñu fondement waxtaan wi Euh, mooy fondement waxtaan wi bu doon ab tabax ñu ne ci lañ ko ci lañ ko teg euh, muy wax suñu borom jooju mu wax ne na ngeen di dimbalante ci lu baax ak ragal yàlla te bu leen digalante dimbalante ci safaan kon loolu wax gi ko suñu borom wax rek muy digal ndigal ndigal kon loolu dafay wane ne lu am solo la boo gisee ñi nga xam ne sax ñoo ëpp doole ci àddina si euh, wala boo ci wàllu jëflante ak àddina day mel ne ñoom dañuy dimbalante àddina si réew yi dañuy dimbalante euh, groupement yi dañuy dimbalante mbooloo yi dañuy dimbalante waaye ku ber yow dong rek yaakaar naa ne euh, ngir nga dem fa nga bëgg a dem wala nga àgg fa nga bëgg a àgg dana jafe kon dimbalante lu am solo la euh, ba ci ab famille dañuy dimbalante ab dëkk dañuy dimbalante ngir ñu mën a yëkkati li nga xam moom lañ bëgg a yëkkati bëgg koo jëmee kanam kon loolu lu am solo si si naa léegi ñu bëggoon a xam nag ndax est-ce que dimbalante moom ci anam yëpp yëpp lañ ko mën a def nga maanaam mënuñoo duñ bàyyi benn wala dafa war am ay anam wala ay wala ay domaines yoo xam te ci lañ war a dimbalante ak yoo xam ne waruñ cee dimbalante. jërëjëf laaj bi tamit am am na solo lool mm-hmm. kon jëmmi dimbalante ci boppam lu bari njariñ la. Mm-hmm. maam jëmmi dimbalante dafa nekk loo xam ne lu ba lu bari njariñ la lool. Mm-hmm. ndax day dafa nekk loo xam ne ndigalu suñu borom subhaanahu wa taala moo ko digal mboolem. mboolem jullit ñëpp moo leen ko digal waaye ñu war a jëfe ndigal loolu waaye topp ci ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dimbalante ci ak mbaax ak ragal yàlla dafa euh, nekk loo xam buñ ci saxee rek nekk ci rek mhm. nekk loo xam lañ ci soññee bu baax di woote jëma ci mhm. waaye di ko jëfee bu baax mhm. boo baakoon day tax dund gi daal di ñu mën a dund ci jàmm waaye dund nga day daal di neex ne kenn ku ne nekk ci jàmm waaye dimbalante googu mooy tax nit ki ab yoolam yoolam bari lool ni nga xamee ne julli mbooloo muy gën a bari julli mooy ëpp yool boog julli julli kenn maanaam nit ki nga xam daa julli ci néegam rek bu jullee ci mbooloo ah, suñ borom da koy fay da koy ëppee lu tolloog ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar ci riwaay bu nett leen noonu am na beneen riwaay boo xam ne ñaar fukki riwaay ñaar fukki daraja ak juróom-benn mm-hmm. moom la wax mm-hmm. waaye dimbalante googu moom it mooy tax rek eh, li nga xam ne moom lañ bëgg a def ñun ñëpp dañ koy daal di man mm-hmm. maam eh, eh, hadaf yi wala ak projet yi nga xam ne dañ ko bëgg taxawal day daal ñu mën koo amal ndax doomu aadama ci boppam moom kenn rek day lottu ci bu bëggee sax amal dara moom dong daje da cee daal lokk waaye bu amee ay ndimbal rek ñu taxaw ñu koy dimbale rek boobaa la mbëgg mën na am ci anam gu yomb gu gaaw lool te mën naa gën a rafet gën a gën a ñoŋ ci benn benn benn mbooloo yi ndax mooy tax tamit nit ñi bëggante te yàlla tax ñu miinante soppante ci diggante diggante jullit yi nga xam ne dimbalante ci boppam solo su yaatu la rek loo xam ne lu mënta ñàkk la loolu la yónnate yi xamoon ñoom daanan ñaan seen borom subhanahu wa taala mu leen i pour mu dimbale leen boole leen ko koo xam ne dañ leen jàppale ci risaala bi ñu yoree ban man koo àggale fi ñu ko bëgg a àggale fépp ndax yónnate yàlla Haarun yónnate yàlla Muusaa bokk alayhi salaam dadaa ñaan suñu borom subhanahu wa taala naan ko waaqi Haarun huwa afsamu minni lisaanan maam Haarun mii sama mbokk la moo xam ne moo ma gën a leer làmmiñ xëy na boo ko booleeg man mu jàppale ma ci liggéey bi rek dana gën a yomb ci man lool naka noonu yonent yàlla Isaa moom it loolu la doon ñaan di ñaan naan saare di wax naan maanaam saare ilallah maam ni ko Ibnu Kasir firee loolu mooy ay yu saaxidu nii fi daxwati ilallah kan moo may dimbale ci woote bii may woote jëme ci yoonu yàlla kenn moo ma ci dimbale kan moo ma ci dimbale naka noonu nga gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg yi nga xam ne nit ñi dandaa tasee lu mel na ci marché yi wala euh, mbooloo dañuy tase léeg-léeg dadaa wax naan képp ko may yansuru ni ataa uballixa risalat rabbi walahu aljanna képp koo xam ne dimbale na ma ci ma jot li risaala bii suñu borom bii kooku yàlla dana ko fayee aljana mm-hmm. waaye da ngay gis ne euh, ñi nga xam ne ñooy ansaar yi mm-hmm. Euh, ñoom ñi ñi dalaloon yonente bi yonente bi jógee makkatal mukarrama ñëw madinatul munawara mm-hmm. fekkoon fa ansaar yi ñooy ñi nga xam ne ñoo ko yaataloon lool dalal ko teeru ko tata tatagal ko mm-hmm. waaye nag dimbale ko lool nag ci anam gépp nag ñoom ansaar yi maam dimbale nañ ko kàtta dooleel nañ ko mm-hmm. waaye topp nañ ay ndigalam topp nañ ay ndigalam lu mu leen digal rek moom jëfe nañ ko mu xam ndigali yaram la mu xam seen alal la lépp rek jëfe nañ ko ànd ci ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu am texe bu mag suñ borom am ngër mu suñ borom subhanahu wa taala mm-hmm. subhanahu wa taala mm-hmm. Euh, mm-hmm. waaw waaw léegi kon yenn anam la ñu war a dimbalante ndax aay bi boo seetee dafa wax ne taxaawunu al birri wa taqwa na ngeen dimbalante ci lu baax ragal yàlla waaye dafa waxaat ci wet gi ne wala taxaawunu al ismi wal udwaan te dañu af na am na ci ñoo xam ne fii day mel ne euh, ñu ngi dimbalante waaye lañuy dimbalante mooy ni ñu fexe ba faat bakkan ay mbooloo la ñu doon. wala ñu defee ñu fexe bay def ay ñaawteef. Mm-hmm. ak geneen anam gu mën a doon wala ñu fexe bay naxaate wala ñu fexe bay wor ñu fexe bay eh, góor ci kaw an nit ñi. Mm-hmm. di di di lekk seen i alal ak di leen guur seen kaw ca ca du leen jox seen i àq. loolu lépp am na ñoo xam dañ ciy dimbalante. Mm. Euh, est-ce que foofu war nañ cee dimbalante. Euh, jërëjëf suñu maam. Mm. loolu moom lu yàlla tere la. Mm. maam yàlla lim digle ñu ñu dimbalante ji rek mooy mooy mooy ak mbaax ragal yàlla. waaye képp koo xam ne day uh, kere ay mbooloo yoo xam ne ay naxaate kese la. xëy na la tax mu kere ko mooy intérêt rek. mbëgg di dund ci nit ñi ak di leen nax. ne di jël seen alal mu xam ku mën a doon rek loolu ay mbiri seytaane la te lu yàlla tere la te bu ko teelu te bàyyi jéggalu suñ borom it boobaa mbugalu suñ borom rek la koy la koy jural kon anam yin war a daal moom lu yaatu la yoo xam ne kenn mënu koo lim ndax dañu wax ne ak mbaax moom mooy lépp loo xam ne mooy lépp loo xam ne luy mooy yàlla suñ borom subhanahu wa bëgg na ko ak yonent bi sallallahu alayhi ci anam yooyu lañu war a dimbalante kon ñuy dimbalante ci lépp lu baax ci jëf ak tabe ci ci daraja ku am daraja tabe ci jëmm ak ci alal lépp rek ñu ñu ciy tabe di ci dimbalante waaye ñu sàmm dimbalante googu tamit ñu koy sàmm bu baax di ko suuxat waaye di ci soññee di ko suuxat ci ndaw ñi ak mag ñi nga xam ne ay mag la nit ñu leen ciy fàttali bu baax bu ko defee ñu koy gën a bàyyi xel bu baax di ko dundal bu baax a baax waaye tam ñu ñuy bàyyi di dimbalante ci lépp loo xam ne daal luy waral merum suñ borom la subhaanahu wa taala rek mm-hmm. ñu koy sori bu baax a baax bu buñ wootee jëme ci dimbalante dimbal daal kenn daal ndax loolu suñu borom subhanahu wa taala daf koo daf koo tere mm-hmm. euh, te euh, yaatu na loolu daal buntu dimbalante moom lu yaatu la kenn mënu koo lim waaye ñuy dimbalante tamit ci mm-hmm. euh, ci jottali woote suñu borom subhanahu wa taala ci mbooleem nit ñëpp rek mm-hmm. ñu ciy dimbalante ci tasaare xam-xam bi képp koo xam ne boroom xam-xam la ñu ñu muy tasaare xam-xam comme li nga xam ne mag ñi ñi jiit woon maam yi bàyyi woon nañ ko ci ay téere yoo xam ne yu am solo la xëy na maxtud la te ñu bàyyi ko ci kàggu yi rek kon war na ci génération bi nga xam ne ñoo fi ne ñu fexe ba génne loolu gën koo yaatal maam ñu xeex ko bindaat mbind yoo xam ne yu dëppook jamono lay doon yu ñëpp mën a jariñu lay doon ñu ñu génn mool ko nag daal koy tasaare bu ko defee nit ñi mën cee jariñu bu baax waaye buñ ko bàyyee noonu rek ci kàggu yi dafa yàqu rek te boobaa moom kenn du ci jariñu waaye la taxoon mag ñi sonnoon ci xam-xam di gëstu guddi ak bëccëg lépp di bind dafa bëgg rek mu génn ñu dafa bëgg rek ñu génne ko nit ñi jariñu ci waaye du meebu rek ñu koy denc ay ay téere yu mel noonu kon daal li ci ëpp solo rek mooy ñu génne ko gën koo yaatal nit ñi man cee man cee jariñu bu baax baax mm. waaye itam ñuy dimbalante ci woote jëme ci tedd ngay jikko yi mm. mooy jikko yu rafet yi nga xam ne moom la mm. yónnante bi santaane mm. ci la ci la doon jàngal saxaaba yi yar leen ci ak ci la wootee jëme ci ñu fexe ba di woote jëme ci loolee ak rafetal mbooleem jëf yi jëf yu rafet yi ba tey ñuy woote jëme ci ak euh, teggin yu rafet yi ak jikko yu rafet yi yëpp rek ñuy woote di ci jëme bu baax a baax waaye dimbalante lu lu lu yaatu la lool euh, bu jëlee lu mel ne mënees na ci an misaal yu bëree bare mm, mm. comme kuréel yi nga xam ne nekk nañ ci Touba mm. euh, lu mel ne tuubaa sa kanam ak lu mel noonu kenn ku ne gis na ñoom liggéey yu màgg yi nga xam ne ña ngi koy def ci dëkk bi kon kenn ku ne ci képp koo xam ne bëgg na lu baax damaa jël la murit rek képp koo xam ne bëgg na lu baax rek war nay jël dërëmam ay ñaar dërëmam téeméeram ñaar téeméeram di ko ci dugal ndax ñoom kat wax dëgg jëf ju bu baax lan tey ñëpp ñu ngi gis liggéey ngi gis ñu ci teg seen bët kon daal kenn warut a seetaan ñëpp war jàpp bu baax baax ndax gis na ñuy liggéey ay daara te kenn ku ne gis na daara ni mu amee solo ci réew mi ñooy yar xale yi ñoo leen jàngal alxuraan ñoo leen xamal seen diine waaye yëmum foofu kenn ku ne gis na eh, bu nawet ñëwee eh, mbedd yi yeeg kër yu bare bari ndox yi daf koy nangu waaye dañuy gis ne moom dañuy jël mbedd yooyu dañ koy defaraat ba nit ñi mën faa jaar ñi nga xam ne tamit ñoom la ndox mi lor nangu seen kër mm-hmm. gis nañ taxawaay yu màgg yi ñu ci mm-hmm. amee seq ko kuréel gi nga xam ne ñu ñoo nekk fii mu isbu tarxiya mm-hmm. ñu ànd ak ñoom liggéey bi te dénk leen ko ñuy dimbali ñooñu di leen fat ci kër yu ñu mën a nekk waaye di leen toppatoo ci seen wàllu wér gu ak seen dund loolu liggéey la boo xam ne lu yàlla gërëm lay doon lu yónnate bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm lay doon te ñëpp war nañ leen cee jàppale bu baax lu waay man rek ci jàppale leen ci alal ak dooleeg lu waay man rek war na leen ci jàppale ñu mm. kon ñun seen liggéey yooyu muy Touba ca kanam ak mm. ak man is bu tarxiya ñoom it gis nañ mm. eh, liggéey yooyu ñu ngi ci taxawee ak bu événement yi ñëwee lu mel ne ay gàmm gis nañ ñuy dem ci kilifa yi di leen séddale ay xee ay ay xéewal ñoom ñu koy tasaari seen mbokk yi loolu liggéey yu màgg la yoo xam daal moom lu luñ sant la bu baax a baax waaye itam ñuy dimbalante lu mel ne liggéey ay daara liggéey ay ay jumaa waaye jumaa moom it lu am solo la waaye daa am lu ko war a gën a jiitu nag mhm. mooy lu mel ne ay daara ñu gën koo yaatal bu baax mhm. di liggéey daar yi waaye di fa teg ñoo xam ne ñu mhm. xam mécc ma lay doon ñoo xam ne ñu am xibra ci ci ci mécc lay doon am xam-xam tamit bu ko defee mooy tax liggéey yi kii ñu koy ñu koy mën a ñoŋal ci njàngale mi ak yar ba ak xamal ñi nga xam ne ñooy xam bëgg xam seen diine ñu leen ci jàppale bu baax baax di leen ci xamal bu baax a baax waaye lu mel ne saxal ay ay ay xeeti mu ay ay waxtaan ak yu mel noonu lu mel ne jotaay yu mel ni ñu mu mu mu bari lu muy am nag ndax dana tax ñi fàtte woon rek mën a fàttaliku waaye ñi nga xam ne dañoo xamante mën cee jàngee lu lu baree bare ci xam boobu waaye di xamal ñi nga xam ne xamut ak di muñ lor yi ñi nga xam ne dañoo réer ñuy muñ seeni lor ak seeni jafe-jafe yi nga xam ne léeg dañ koy dañ koy teg nit ñi ñu koy muñ bu baax baax waaye lu mel ne tabax ay poste de santé ak mhm. ay euh, ay hôpital ak yooyu yëpp ñu koy def ngir ñu ciy fajoo maam ñi nga xam ne ñoo seen doole dafa néew mhm. ñu mën a dem foofu di fa fajoo loolu tamit lu lu baax la ak jàppantal la goo xam ne mhm. moom it bu bëree bëri da cee hmm. waaye di ba noppi ñu taxaw ci hôpital yooyu. Hmm. wala fajukaay yooyu ba xam ne ñu néew doole danañ fa mën a jote nag. Hmm. yombal faj meeg yombal garab yeeg yooyu. waaw ndax man naa tabax hôpital ba noppi. Euh, kay ba noppi nag ñan fay teg boo demee yow bëgg faju ji. mu seer seeraay boo xam ne. néew doole yi duñ ci mën a mën a jëriñ. loolu moom lu jar xeex la. boo gisee jamono yi faatu yi bari lool bokk na ci lii li koy waral rek mooy loolu. nit dana tawat yor tawat bëgg faju du mën a faju ndax seeraayu faju mm-hmm. Mm-hmm. moom moo koy waral mm-hmm. moom ñu mel noonu nag kon dañuy aaja jàpp jàppandal bu baax maam ñan fay teget ñu mën na ñoo ñu nekk ñoo xam ne ñu mën a jëflante nit la léeg-léeg place bu mel noonu da ngay gis ne boo demee maanaam liñ lay ni ñu jëflante rek day xaw a doy waar lool ba ku tawat rek léeg-léeg mën naa tawata mën na faa yokkoo léeg-léeg mën ngaa ñëw bala ñu laa xool rek dañ lay teg ci saal yi bala ñu laa xool mën naa jël temps bu baree bari wala léeg-léeg xaw a naqari deret te ñooñu dañ leen war a tàggat ba ku ñëw rek danañ mën a jëfalanteek moom jëfalante bu bu rafet a rafet mm-hmm. waaye itam ñu ni nga ko waxee ñu yombal garab yi tamit mm-hmm. léeg-léeg sax bu jëree gouvernement bi lu baree bari mm-hmm. wala kilifa yi ñu ko ciy dugal bu ko defee ñi mel noonu bu ñëwee ñu yombal leen garab yi daanaka yenn yi sax mën nañ leen ko mënees nañ leen ko may waaw boo demee lu mel ne réew naar yi lu ci bari moom faju dafay xaw dafay yomb dan dañ yombalal ñu ñàkk bu dee étudiants yi dañ leen yombalal lool mhm. léeg rek am na garab yoo xam ne sax boo demee dan dan la koy may dan lay dan lay may garab yu bare bari mhm. kon loolu daal lu jara taxaw la mhm. euh, ñi nga xam ne ay mag la tamit ñu leen dimbale di leen taxaw bu baax ci di xool seen wér gi yaram di leen faj waaye di leen toppatoo ci ñuy jëfandiku di leen xool ñam yoo xam ne yu baax la yu am vitamine la bu ko defee ñu leen koy jox ndax ñuy gën a seen gën a am kàttan ndax mag moom bu ko toppatoo rek bu lekkul rek boo gisee mën nañoo gudd fan nag ci buñ leen topp toppatoo waaye buñ leen xawee sàggane rek lu ci bari mën nañuy indi ay ay jafe-jafe kon daal ñooñu ñu ñu jara toppatoo lan waaye itam bokk na ci anam dimbalante googu rek mooy ñuy saxal ay ay ay jaamuwaay kon ni mu ko waxee la lu mel ne jàkka ñu ñu ko kii waaye e, di xool ñu ñun tàggat ci xam-xam ak ñu am yenn néew yi daal ñu leen fay teg ak lu mel ne léeg-léeg këri sëñ Tuubaa yi sax mën faa teg ñu mel noonu xam ne ñiy bëgg a xam seen diine bu ñooy fekk leen fa ñuy gën a mën a tasaare njàngaleem sëriñ bi loo lépp lu am solo la ak barab yooyu ñu koy taxawu ay yi nga xam ne ay symbole la ci di diine ji moom it ñu fonk bu baax màggal ko bu baax a baax ndax suñ borom moo ne wa may yu'azzim sha'aa'irallaahi fa innahaa min taqwal quluub maanaam fonk yooyu barab yooyu kat moom ci ragal yàlla la la bokk mm-hmm. Euh, bokk na ci dim anam dimbalante googu mooy ñu dimbalante ci xam-xam comme ni ma ko waxee léegi rek Sidna Omar radiyallahu anhu moom dafa euh, dafa am hadiis boo xam ne imaam Buxaari yi moo ko nettali mu ne moom ka daana euh, dimbalante ci xam-xam ci ku ñu wax xaw ibnu Xawli yi xam ne ñoom dañoo dëkkooñ fi ñu wax xawaalil Madina maanaam ñu xaw a xaw a sori dëkk bi daal moo ko dëkkandoom boobu moom Sidna Omar waaye kon bu dëkkee fu sori dana jafe loolu ñuy dem bi set ci yónnante bi di fa taataani xam-xam ak yu mel noonu waaye dañ daa dimbalante ñoom ñaar bu kiy demee tey lu mu fa jëlee ci ak mbaax ak xam-xam ak xadis bu ñëwee nettali ko hmm. euh, nettali ko moroomam am noonu lan hmm. daa dimbale kon ñi nga xam ne ñooy sàkk xam-xam ci jamono yi mën nañuy def noonu hmm. bu fekkee ne bokk nañ fenn fu ñu jàngee te bokk na téere téere bi ñu jàng bokk bi ñu jàng xam nga léeg-léeg jafe-jafe mën na gaar nit mën a teew bu kenn teewee rek bu demee bu ñëwee mën naa jàppale moroomam ci leçon ba leeralal ko ko ba mu leer nañ ak lépp lu mu jëlee foofa ay xibaar yoo xam ne yu ñu war jëfee laat mu jàppale ko ci moom it leeral ko ko ba mu ba mu xam loolu bu baax baax mm-hmm. euh, waaye itam loolu daal lu yaatu la daal ci gàttal. Mm-hmm. lu yaatu lool la. Mm-hmm. moom moom solos solos dimbalante googu. lu yaatu lool la. yaatu na lool euh, léegi euh, loolu tax si yaa ngi sànq. ci dimbalante gi da gis ne jamono yi nga xam ne jamono yi nga xam ne taw bi xam nga indi na lu mel ni am mbënd. ci barab yu bëree baree bëri rawatina ci Touba euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaan fi yàgg la te wér taxaw ci taxawaay bu am solo ni mu koy defee rek moom naka jekk wala dimbalante moom euh, dafa doon loo xam ne ku ci taxaw la ku ci af amu joxañ la daal day jëwriñ ju jëwriñ euh, yemale ko ci dëkk bi waaye ci xew-xew bu am gis nga jamonoy wéré di googu yi gis nga li ñuy wax mbas mi ba ci bitim réew sax day gis ne day yëkkati alalam di ci def ngir rek dimbalante waaye tamit am na joo xam bu am solo bu mu def nag daal di mm-hmm. def ab kuréel kuréel mm-hmm. ndax lu ci nekk mënoon na ko defal boppam mm-hmm. waaye bëgg naa joxañ nag ne lu ci nekk ne dañu war a dimbalante sun biir ku kuñ ci fekk mën nañ cee mën cee fekk euh, loolu lañu sëriñ bi joxoñoon moo tax mu samp kuréel boobu tudde ko junnatu li man nazama euh, muy Touba ci kanam ñetti kuréel seq ko Touba ci kanam ci ñi te sëñ Abibu Cheikh Maodo Fadal ak itam waa Hizbut Tarqiyyah ci jiitul sëñ Youssouf Diop. waaye tamit euh, waa commune bi jiitul sëñ Abdou Lahad Ka euh, ñu daal di wax ne rek moom si Mountakha mu yëkkat jël njëkkat jël alal ju takku def ci. daal di sàkku nag ne kenn ku ci nekk loo ci man da def ko ci. Euh, léegi nag murid di ñu ngi góorgóorlu di ci def kenn ku ci nekk yaa ngi taxaw kem sa kàttan. waaye ñoo xam ne liggéey buy continuer la boo xam ne. yemul rek ci jàppal nii ñi am kër jàpp able seen kër ñi dimbal ñi ci ab dund ñi nangam. yooyu baax na mm-hmm. euh, waaye nag li si muntaxaa di joxoñ man ci ni ma koy dégg man mm-hmm. gën naa yaatu loolu mm-hmm. euh, dana àgg sax foo xam ne bu ñuy defee seen àll kenn ku ci ne xeeboo ci li nga am dana mujj sax liñ soxla lépp ci wàllu canal canalisation ak ci wàllu lépp lu ñu mën a fexe ba ndox day am aw yoon lu ñu fexe ba euh, saytu ko ba nga xam ne ndox mi bu dikkee dana mën a am fu mu dugg ba nga xam ne du mën a am yenn taa yu bari yi nga xam ne dana tax muy indi yenn mbënn mi loolu itam defe naa ne euh, joxañ la bu joxañ boo xam ne bu ñu dajale li ñu dajale ci dëral dëgëral kuréel bi sax mun taxaa taxawal yaakaar naa ne dana mujj sax bu nawet ñëwatee defe naa ne coow yi coono yi yëpp dañ koy fàtte ci kàttanu yàlla kon loolu lu am solo la muy taxawaay xam ne defe naa ne lu ñu rafetlu la euh, sëñ Sidna Aliou am na ñoo xam ne ñoom dañuy jàpp ne ku ñu bokkalul kuréel wala bokku ak yow dëkk wala bokku ak yow kuréel ci diine. Mm-hmm. wala bokku ak yow parti politique wala nàngam wala ak mbootaay. Mm-hmm. waruñu dimbalante ak yow. Mm-hmm. loolu loolu moom ñu ñoomtale. Eh, dimbalante moom. képp koo xam ne su mbokkum jullit la rek. anam goo ko tanee te mën ko caa dimbale rek. war nga ko caa mën a mën a dimbale. waaye eh, loolu moom gàtt gis-gis lool la sax. te lu lu jara lu jara moytu la tamit. dimbalante daal moom ci lépp daal. mooy di digle digle lu baax ak tere sofaan. waaye ci dimbalante ko ci daraja tam ni ma ko waxee léegi ak ci jëmm mhm. ak ci ak ci jëmm ak alal ak lépp lu mën rek ba ci wax sax moom fekkee ne am na wax yoo xam ne boo ko waxee rek mën naa jëriñ ñenn mhm. mën naa jëriñ sa mbokk na nga ca dimbale bu baax waaw ah, donte jullit la wala ku julli sax xëy na am na loo xam ne boo ko xee mu mën koo jëriñ rek mën ko kéer mën ko caa dimbale mhm. ba ci ay xalaat tamit ah, boobaa moom it lu lu lu lu lu a génne la moom fekkee xalaat bu am njariñ la te boo ko génnee rek nit ñi mën nañ cee jariñu boobaa kon loolu lu am solo la waaye li mu Muntaxa ni nga ko waxee loolu mu joxañ moom yaakaar naa ne gën naa yaatu loolu maanaam lii moom lu gaar la te xëy na moom mën naa mën naa jeex ci lu gaaw waaye itam ñu fexe ba maanaam fekkoon ne mbooloo yi mbooloo yi yëpp joxañ leen loolu ñu fexoon ba organisé wu kenn ku ne di laaj weeru jot kenn ku ne dara maanaam bu demee ba nekk dara nag ñu def ci lu mel ni ay usine yoo xam ne xay na ndaw ñu bari dana ci mën a yëngu mm-hmm. boo gisee taxawaal bi léeg-léeg di bari ci dëkk yi mm-hmm. léeg-léeg ñu bari dañu amul lu ñu rek waaye buñ woon lu mel ne ay usine wala ay tool di jël ndaw ñi ñu fay daan seen doole mm-hmm. loolu am solo lay tey dana wàññi taxawaalu bi ak sàcc yi ak agresseur yu mel noonu maanaam nit ki moom bu bu tënkoo ci dara rek yu baree bari dana ko jomba def waaye fekkee ko muy xëy di gont di di ci jëngu mooy tax léeg foofu daay yi bari lool gis ñu naan sàcc nañ kenn faat nañ kenn wala agressé nañ kenn yooyu moom moo koy moo koy faral li moo koy faral li waral waaye dimbalante moom moom imaam Xurtubi moom dafa wax ne ci tafsir ayam boobu mu ne léeg sax mu nekk loo xam ne lu war lay doon mu ni nga xamee ne boroom xam xam-xam bi am xam-xam day war ci moom mu jëfe xam-xamam waaye mu xamle lam xam tamit daa fekkee ne xamu dafa xam ba noppi xamlewul rek bu moom baaxut moom bakkaar la ci la ci am comme xam-xam bi nga xam da ko am na ko yaatal bu baax ci nit ñi mën cee jariñu bu mënee bind ne bind di di mool nit ñi di ci jariñu fekkee dafa mën a tasaari xam-xam ci def ay conférence ak yu mel noonu wala muy sa téere xam-xam yi mu koy mu ko mu koy leeral ku mel ne jàmbaar jooju suñu Abdourahmane Mbacké moom it ñu ñaanal ku baax suñu borom subhanahu wa taala gën koo dolli yërmaandeem ak ngërëmam lu sax dakk rek ak mboolem ñu mel ne moom mm-hmm. kenn ku ne gis nañ liggéey yu mag yi nga xam ne liggéey na ko ci yoon wi ku jara sargal la ku jara di ñaanal waxtu yu ne la mm-hmm. ndax euh, téere lu ëpp ci téere sëñ bi yi ñu jàng yëpp yëmul sax téere sëñ bi mm-hmm. téere yi njàng ci dëkk bi yëpp yu am solo yëpp mën naa ne leeral na ko ci langage bi yu ñu xam langage olof yi ba bàyyi ko fi nit ñi mën koo jariñu nga xam léegi nit ki jàng moom sax mën ngaa bañ a yor sa téere dem ca kenn mu jàngal mën ngaa nekk sa néeg leerlu téere boo jàng léegi mën ngaa nekk si néeg mm-hmm. diglu ko te eh, façon bu leer nañ la koy jàngale mm-hmm. kon daal bi mel noonu moom jaral naa bari lool mm-hmm. ay jàppandalal ñuy jàng moom it ci ay xeeti jumtukaay yoo xam bu ñu bëggee gëstu dañ leen yombalal ñuy gëstu bu baax lu mel ne xay ay xeeti maktaba yoo xam ne dañ koy moom sax am na fi waaye ñu gën koy yaatal ba mu bari lool ba téere mag yi nga xam ne bàyyi woon nañ ko fi rek bu ñu ko liggéeyee ñu bàyyi ko foofu hmm. bu ko defee képp ko xam ne bëgg naa yaatal xam-xamam rek hmm. bu demee ca foofa ci maktabaat yooyu hmm. man faa yaatal xam-xamam bu baax a baax tey ñu ko yombalal bu baax ci bu ñëwee foofu ngir yaatal xam-xamam jërëjëf kon daal di dimbalante lu am solo la waaye tamit nit ko war koo yemale rek ci kuréelam wala ci ay mbokk mbokkam donte fa la war a tàmbalee wala mu yamale ko ci ñi mbokkal parti politique wala dara waaye nag euh, nit ki surtout nga doon ab jullit moom moo ñu tax a wax ñun war ngaa mën a dimbale ñëpp fu ñu mën a nekk ca xam ne sa sa sa mbokk la. Euh, loolu lu am solo la euh, li nga xam ne moom la nga wax ci kuréel yi itam loolu moom du yem sax ci kuréel yi waaye kuréel yëpp daayira li ko tax a jóg dimbalante ci la bokk. Mm-hmm. ndax boo see daayira sax dangay gis ñu am commission boo xam ne moom la ñuy tuddee sociale. Mm-hmm. ngir dimbalante. da koy am mm-hmm. loolu defe naan lu am solo la defe si suñu Cheikh Mbacke yenn fan yàlla na suñu borom yokk leer yërmande loolu daana ko joxoñ bu baax a baax ci wàllu daaira mm-hmm. ngir ñu mën di dimbalante bu baax a baax a baax loolu defe naa ne yaatu na ci mbooloo yi ci daayir yi dawaayir kon loolu lu am solo loo xam ne lu mat a bàyyi xel la kon daal dimbalante lu am solo la waaye nag nit ki na gëm ne moom daa war gën a yaatu nag ubbeeku ci wàllu dimbalante mm-hmm. jëmmi daayir yi ci boppam mbooloo yi ci boppam sax du ñu yem seen bopp rek di dimbalante mm-hmm. ñoo xam seen bopp rek la ñu yem waaye nañuy ubbeeku tam di dimbalante ñeneen loolu defe bokk na ci jox ñëpp seen muntaxaa ndax boo gisee mu dajale lu mat ñetti mbooloo yu mag wala ñett kuréel ñaar ñoom ñooy mbooloo yi ci des mooy commune bi mu dajale leen kon mel na joxañ na leen ne kenn du amu ci kenn koo xam da ngay yem rek sa bopp mm-hmm. donte ñoom doon nañ jëflante nag mm-hmm. waaye da ko bëgg joxañaale pour ñeneen ci des ñëpp mm-hmm. xam na nag bu ci kenn tëju rek yow dong ndax kenn rek mënut benn kuréel doo ngi rek mënul mhm. waaye bu ñëpp dajaloo dimbalante kenn ku ci nekk dimbale ñeneen mhm. su boobaa defe naan dimbalante ci dana gën a yaatu ndax ñu ci nekk am nañu luñ man ñoo xam seen morom ñeneen mënuñu ko mhm. su ko defee kenn ku ne bu dajalee compétence yi man-man yi rek eh, ak alal yi bëgg a def danañ ko a def kon loolu am solo la xam naa kon bala ñoo jàll rek nga teg sa baaram foofu ñu ñëw suñu rubrique li baax xam suñu rubrique lay baax xam ñu bëgg a euh, tàmbalee ci euh, wax joo xam ne def naa lu fi yàgg la ñu wax naa aljamaatu rahma dañuy wax ne am na ñu ne sëñ Fallou la askane lay wax jooju radiallahu anhu mm. mu ne def ko doon firee ne aljamaatu mbooloo day euh, mu bokk yéene bokk yëg-yëg bokk xam-xam rahmatu lu ñu jéem man ko mm. wax jooju boo ñu ko mënoon tënkal ci benn minute nan ngeen ko mën a tënkale mm. loolu wax ju gàtt la waaye wax ju yaatu la tamit. Mm-hmm. yu yaatu la lool. Mm-hmm. dañuy wax um, wala am na ñu naan uh, mbooloo mooy doole comme ni ko la fi waxee. Mm-hmm. ma mbooloo moom lépp loo xam ne dañ ko sumb rek. boobaa day day daal di jàpp ni lool day yomb tamit. waaye bu kenn ku ne seetaanee rek. moom day daal di uh, néew dañuy daal di néew doole. kon daal jullit ñi li war a def mooy mbooloo te moom la leen yónnate bi. sallallahu alayhi salaam sant ci ñuy dimbalante. mooy tax lu ñu bëgg a taxawal rek. moom day daal yomb gis nga murid yi lépp lu ñu kii rek day daal yomb maam Masaalik bi nekk dakaar seen liggéey milliards yi fa nekk yi ñu fa def bari na lool mm-hmm. waaye liggéey bi gaaw na mm-hmm. ak mboolem seen liggéey yëpp noonu lay demee rek mm-hmm. kon daal dañoo war a dimbale ci dimbalante ci lépp rek euh, ci lépp ñu ci dimbalante bu baax baax kon loolu lu am solo la euh, waaye moytu tam bu baax a baax dañuy gis ñu bare bari surtout ci internet bi ci réew mi sax laay wax fa ne jëm ko dégg ci mel noonu par loo ci wàllu politique ci wàllu ak ba ci kuréel diine day gis ne dana tax fu ne léegi daal ku jóg ku jóg rek di wax wax joo xam wax ju ñàkk teggin la wala jox wax loo xam da ngay ñeme ñemelu loo xam ne ñu bari buñ ko ñemee tamit seen ngor ak seen jom euh, dana tax duñ ko bëgg a wax wala duñ ko bëgg a def yow na nga wane ne mën nga koo def wala wan mën nga koo wax waaye soo ko defee wala nga wax ko bu ñu bëggee dal sa kaw wala am ñu ci kiira da ngay daal gis am ñu lay jàppale. mbooloo mu bari ñuy taxaw di la tontu ci internet beeg. kii daa dëggoo kii nangama kenn ku ne am na ñoom daal loolu lañ fi nekk moom. di tontul ñu ñàkk teg ñeeg di farfarloo yooyu daal lañ fi nekk daanaka amuñu xalaat yu leer ñoom ku jóg daal révolté taxaw ne moom ñeme naa lu kenn ñeme wala ñeme naa wax lu kenn ñemut a wax. ñooñu moom pare nañ pour bind ci internet bi di la tontu nag naan jàmb rek nangam nangam ak dañ ko bëgg a nii seen liggéey loolu defe naa du liggéey mm. kon kuy dimbalante na nga dimbalante ci lu baax nga xam ne mooy li am solo kon li moo nekkoon suñu rubrique li baax a xam kon léegi sëñ Sidna Alioune Bousso fu ne waxtu wi jeex na xanaa boo amee looy tënk sax ci jeexal mën nga koo tënk bu ko defee nga tàggoowaale. Hmm, jërëjëf suñu maam. Hmm. Euh, thème bi daal kon hmm. thème bu bu yaatu woon la rek. bu am solo lool boo xam ne daal. jullit ñi war nañ koo gën a gën a bàyyi xel bu baax a baax. ci ñuy dimbalante. Euh, ñu dimbalante bu baax ah. euh, rawatina ñi nga xam ne ñoo loru jamono yi ci ndox mi kon ñu ko waxee léegi mm-hmm. waaye itam ñuy dimbalante ci jàppale mm-hmm. ñi nga xam ne mm-hmm. ay boromi daara lan bari na boroomi daara yu mu xam ñoo xam ne bi tawee taw yu njëkk yi rek dafa nangu seen seen daara kon ñooñu ñoom ñoo gën a nekk irsa ñooñu moom nañ leen taxawu bu baax ci joxaat leen ay dëkkuwaay jun mën a nekk ba continuer seen njàng moom liggéey bi bañ a soxla ndax Euh, jàngale moom euh, ab rôle am ci ci ci ci lislaam bi daal mm-hmm. ñooñu moom ñoo gën a mm-hmm. jara jara jàppale bu baax di jël alal yu baree bari léeg-léeg di dem ci mm-hmm. xeeti ñaankat yeeg ñuy tappalee képp koo xam ne daal bëgg nga aajo fajo mën na nañuy jàppale ñooñu rek maam ñi nga xam ne dañoo néew doole dañoo am ay aajo ñu leen ciy jàppale bu baax bu leen ñaanale rek yàlla ko nangu lu jar ngay dem naan ñaankat bee naan ko defal ma nangam ak nangam mu lay bindal ak ay takkal ak sangul ak wala la xëy na ndaaraam ndox ma nangu na ko mm-hmm. mu joxaat ko kër gu mu nekk da koy jox kër gu jàngale jàngalee mm-hmm. wala mu soxla mbaar wala ay jumtukaay mm-hmm. ay wanag ak yu mel noonu ñu jàppale ko wala mu sax yëkkati dund bu baree bari jox ko rek ñooñu buñ la ñaanalee rek euh, doo ngay ñaanale la rek boobaa kon suñ borom dana la sak sak amam da yokk waaye suñ borom dana sàmbal li nga bëgg a taxawale moom kanam rek ngay jëm waaw kanam rek ngay jëm loolu la am solo la nga xam ne muy daara yi am na ci ñoo xam ne euh, ndax ay xale fay nekk kon mat nañoo jàppale bu baax a baax euh, ba ñu mën a am fu ñu nekk am na ñoo xam ne bu dul ndox mi sax amuñu fu ñu ne dañuy mm-hmm. lu yeeg di wut ay barab yoo xam ne buñ nekkee fii tey bu ëllëgee borom kër gi di dikki na damaa soxla sama kër buñ luyee tamit luyaas bi seer na euh, boo fayut boo tuñu dikk génn la ci alxuraan nga xam génn ko mooy génn alxuraan bu gën a sëriñ daara mooy génn nag ay daw nga am dem faneen nga am daara ji du sax benn place te loolu day day jeexatal ci xale yi day jeexatal ci njàng mi mm. waaw loolu itam lu mat a bàyyi xel am na ñoo xam ne lu ne la ñuy def tabaxal ñeneen fii tabax ñi te buñ koy def du bañ koy def xëy jëg seen nag mm-hmm. am na ñoo xam bu ñu dimbale moom dañuy seet ab jal maanaam borom daar yu mag ñi daal yu mag yi lañ gën a dimbale wala borom daraja yi Euh, moo xam daraje diine war a daraje àdduna ñooñu daal da gis ne moom dañ leen mën a jàppale lool gaaw tabaxal leen kër ay étage tabaxal leen nangam nangam waaye fekk yaa ngi romb ci koñ ba koo xam ne nii amul dara day day ci ron garab bi lay jàngaleek ak watu mbaaram moo xam ne ni bu day bu taw bi jotee muy senn mm-hmm. waaye doo ko doo ko doo ko faale sax far mm-hmm. yow daal da ngay sekk fee koo xam ne koo xam ne borom daraja la rek nga mm-hmm. tabaxal koy étage yu mag romb kee nag loolu nag yàlla mi gëmmu nelaw ca mi ngi gis nag nekk ku lu baax te yàlla rek tax yàlla ko seeqal waaye koo xam ne nag moom leneen nga ci jublu nag su boobaa nag yàlla bàyyi la ak leneen dama xam lu mu lay mënaan waaw ca loolu amul benn njëriñ euh, kon xam naa ne suñ Sidna Aliou Bousso euh, sant nañ la gërëm nañ la Euh, xam naa ne kon mën ngaa tàggoo. Hmm. waaw a ngaa bu ko defee ñu hmm. mën a. tàggoo yi moom hmm. kàddu yu gërëm la rek sant la bu baax ci. taxawaay yu yi nga xam ne yaa ngi ci guddi ak bëccëg moom te sunu taayoo yokkutoo daal loolu moom ñu ngi la ciy sant bu baax di ñaan yàlla gën la cee defal tawfeex lool ba yombalal lépp daal wax dëgg sant nañ baax ci seq yu jotaay yu mel nii ndax njariñ rek lañ fi lañ ciy jëlee kon daal lépp daal day delluwaat ci yéen rek ak waa kër gi ñëpp daal ñu sant leen bu baax ci liggéey yu rafet yi nga xam ne ci ngeen xëy mm-hmm. ngeen di gont mm-hmm. kon daal loolu mooy kàddu yi rek lu ci dëng daal mm-hmm. ngeen xam ne sama matadi ak matadi doomu aadama rek moo ciy feeñ ndax doomu aadama la yàlla bindee muy fàtte léeg-léeg ak di juum la yàlla rek moom ki nga xam ne moo mat lu ci mattit lu ci rafetit ñu sant ak suñu borom subhanahu wa taala rek moom moo ko dogalee noonee kon daal ñu ngi sant ñëpp di jégalu ñëpp wa axiru dahwaan an alhamdulilahi rabil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatulah taala barakaatu jërëjëf si seen Aliou Bousso waxtaan wi am na solo liñ ci doon séntu tam gis nañ ci lu kawe njortu am na solo lool wax dëgg yàlla fu ñu sàkkoo ci yow lu mel nii euh, doo ci am ngànt ndax xam nañ ne du ma wax ne da bàyyi sa yitte ñëw yow bàyyiwoo sa yitte da ngaa ñëw sa yitte hmm. yow si seen Aliou Bousso bàyyiwoo sa yitte da ngaa ñëw sa yitte waaye lii nag sa ndox la la tubaarkàlla am na solo lool euh, xam naa ni ku ma taxawu la nag mu si Aliou Bousso ndax euh, jàmbaar la te itamit euh, doxinu mag ñi lay dox dox doxinu mag ñi moom lay dox borom daara la te ku kuy def résultat yu am solo la ci daaraam euh, ñu mel na moom bari nañ ci dëkk bi waaye tubaarkàlla moom it nag ku ci euh, bay wàllam la ci anam gu sell gu jaar yoon mënut a taxaw nag di yëkkati ay loxoom di ñaan fu ne am na ñoo xam mënuñu loolu mënuñu taxaw di yëkkati seen loxo fu ne ñu taxaw fak di raam ci kanamu borom alal yeeg di def yu mel noonu am na ñoom loolu lañ bëgg waaye am na ñoo ko nag waaye nag ñoom ni yàlla suñu borom wax ne am na ñoo xam ne euh, laa yasalu el xaafan ñoom dañoo doon ñoom dañoo fekku ba mënuñoo dëgg di ñaan ñooñu nag la yàlla suñu borom ne ñoom la bëgg sax ñu ñu gën leen a mën a dimbale gëstu leen ba xam ne dem dimbale leen ndax ki xam mën naa dem ñaani moom xam nga ko jëfewut ay mbir mm. waaye koo xam ne mënu ko ne mënut a dem di ñaani kooku nga fekk ko fa mu nekk dimbale ko loolu lu am solo la si sir na Aliou mii nag wax dëgg yàlla ko mat a jàppale la ay résultats yu am solo la ca amut fu mu jàngalee dafa nekk ci barabam nii rek boo xam ne nii nekk fi ci ron am mbaaram noonu léeg bu bu tawee muy senn wax dëgg yàlla waaye taxul mu bàyyi loolu muy wax naan dawoo yox yoxawoo waaye moom yox yoxawut yokkatuwut te itam ko ko ci bàyyi woon it ca lay nekk moom ndax mooy ndonoom ca da ko gëm kon nag ñi nga xam dañuy def ci fii sabilillah nañ xam ne ku mel na moom ku mat a jàppale la soo yëkkatee sa alal def ci wala nga yëkkati nangam ci ciment wala ay fer wala nga jàppale ko ci daara wala nga tabax daara sax jox ko xamal ne boo ko yëkkatee bu tàllalee loxo nam yàlla moo ci ci yoxal suñu borom ko teg teg nga ko ci loxo Serigne Touba mi nga xam alxuraan mooy ndonom mooy léppam rawatina ci Touba nga xam ne ne bu amoon li ko gënal fii lay toog di jàngale alxuraan loolu la Serigne dëgg mooy ne nekk ci Touba di fa jàngale alxuraan nee na boo fekkee li ñuy wax cat wala gémmiñ moom am ko daal mooy ñàkk gi mën a ñàkk toog ci Touba di jàngal alxuraan waaye nag am na ko ndax am na ay sëtam am na ay ñoo xam ne ay taalibeem yu mag yoo xam ne ñu ngi taxaw di ko ci ko ci taxaw rawati ñi nga xam ay sëtam nag la waaw ndax sëñ seen Alioune Bousso sëtu sëñ Mbàkke Bousso la ah, sëtu sëñ Mbàkke Bousso la xam-xam di lépp kon ñoom sëñ Touba am na fu mu leen tegoon foo xam ne nii ci itam ñoom itam ñu doon féete sëriñ bi di ko fa liggéeyal anam goo xam ne sëriñ bi gërëm na leen kon nag moom it ne bu bokk ci ñi nga xam ne tax nañ ba sëriñ Touba lam bëggoon mu am ko ci dëkk bi ku mat a jàppale la ku mat a taxaw la ku bëgg daal foo def ci liggéey bi yàlla def ko ci alxuraanu karim ku mel ni Sëriñ Sina Aliou mi fi ak ñu mel ne moom bari ci dëkk bi lool kon jërëjëf Sëriñ Sina Aliou Bousso ñi ngi lay sant baax di la gërëm di siyaarawaat bu baax nag di ñaanal borom pëcc bi ak mbégtim Cheikh Mamadou Muntaxa yàlla suñu borom dolli ko seen ñun taxaa jàkkal ko fi suñu kanam loolu mu ànd ak wér ak wérle ba lépp lu mu yéene ci liggéeyal Xaadim Muntaxa yàlla ci wax jëf ci lu koy njort yëpp di siyaare waat nag mboolem suñu kilifay diine ak fu a nekk ñaan lu tawfeex euh, kon xanaa ñu wax leen li mooy seen jataay bi a xadarat muslim mooy culture et civilisation musulmane ñu doon ci ànd si si Sidna Alioune Bousso waxtaan wi am na solo lool tubaarkàlla ñu ngi siyaar baax na sëñ Omar Bousso euh, xalifa sëñ Mbacke Bousso di borom Pastef moom itam ku ñuy bàyyi xel la mm-hmm. waaye itam sëñ Moustapha am du Moustapha Bousso xalifa sëñ Omar jëmm euh, moom sëñ Bousso bi moom itam ku bàyyi xel la ak njabootu sëñ Bousso bi ñëpp rek ak saa bu so ñu ngi leen siyaar bu baax xanaa ñu doon waxtaane kon tey rek lu aju ci wàllu dimbalante rawatina waxi suñu borom ji wax na ngeen dimbalante ci lu baax ak ragal yàlla eh, ca bu leen dimbalante ci mooy waaye tam ay bàkkaar ñu dig leen daje beneen jotaay kanin suñu gan mu ne ko mbokk al imaam ñi al mahmoud fii ci al muridiya Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asinu muhjamatan wal kaafu warraaw seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñuy publication mën ngeen abonné Al TV te bu leen fàtte laal cloche bi.